Bienvenue sur Salam Vision. Bonjour, comment ça va et comment va la santé Bismillaahi mina shaytaani rajiim, bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi maa ngi nuyu téléspectateurs yu Salam Vision yi maa ngi leen di ziar di nuyu diaspora bi di nuyu waa àdduna bi yëpp di nuyu di dem nag ci hôpitaux yi di ziar malade di leen ñaanal yàlla yàlla ekkati leen ci jàmm maa ngi doxantu ba ci prison yi di nuyu ñiñ fa téye di leen ziar di leen ñaanal yàlla génn leen ci jàmm ak salaam. maa ngi nuyu kilifa aada yi di nuyu kilifa diine yi di jiital nag ci kilifa diine yi sama wasila muy sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg te ak kilifa diine yépp maa ngi ñaanal ñépp nag di dellusiwaat nag tey ci seen émission Salam Santé bi passé nag waxtaan am wax defoon nañ fi waxtaan bu am solo tey nag balaa may dugg ci waxtaan bi ak ni may ñaaxee nit ñi dama leen di gën a ñaaxaar rek di waxtaan ak yéen sama mbokk yi ci affaire coronavirus bi li may wax toujours rek moom laa ubbee sama émission moom laa koy tëjee coronavirus bi mi ngi ci àdduna bi mi ngi lor mi ngi rey mi ngi def lu me lu baree bari ñu bari ñu ngi ciy lor li ñu gis bi pas ci deuxième vague bi gisuñu ko woon sax ci première bi parce que première bi xëy na dee yi bariwul woon mais deuxième vague bi dee yi bari trop trop trop. may wax na ngeen fagaru ndax fagaru moo gën faju di leen takk seen masque yi tey utiliser gel yi ñuy gërëm tamit di remercier suñu monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di ko wax ni ko mi ngi def liggéey bu am solo yàlla na ko yàlla jàppale. tey nag dañu ñëw ci affaire vaccin yi ba tey ci la ñu ñëwoon dañu ñëwoon bi paase doon yee askan bi dañu ñëwaat pour yeewaat leen bi paase dañu indi woon deux cent mille doses. yu vaccin yi ba ñu gis ci suñu premier suñu ministre de la santé muy Abdoulaye Diouf Sarr vacciné woon ñu gis tamit suñu papa Mansour Mbaye Mbaye ba caak Fatou Ngoné yàlla fi yàgg te wér moom it ñoo wane bon exemple daal di def vaccin yu vacciné li ñu ñëwaat pour waxtaan ak yéen rek ci mbirum euh, vaccin yi ba tey tey Sénégal mi ngi seentu trois cent vingt mille doses pour jox ko pour séddale ko ci askan bi mën a ñàkk ñëpp may yee nag tey jii tey nag damay waxtaan ak sama mbokk jigéen ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi ñu gën a dugg ci quartier yi gën a dugg ci gox bi comme ni ñu leen tuddee bàjjenu gox ñu gën a waxtaan ak askan wi ndaxte feebar bi tey jii vaccin yi rek moo ci mën a génn nit ñi vaccin yi nag bu ñu ko indee Sénégal pour ñu jàppale Sénégal pour ñu jàppale àdduna bi yépp la sax parce que tey dëkk boo dem foo dugg foo xool ñu ngi ñu ngi vacciné nit ñi Sénégal tamit mi ngi ci am jéego bu am solo parce que bu indee vaccin ba ek jël 10 pour cent yi séddale ko Gambie ak Guinée-Bissau ah Sénégal mi ngi bay waaram bu baax ci feebar bi tey nag bàjjenu gox yi tey ñoo moom waxtaan bi seen xarit seen bo seen moroomu jigéen tey mooy waxtaan ak yéen ci affaire vaccin yi dugg leen ci gox yi waxtaana leen ak askan bi parce que jigéenu biir yaa ngi fa te jigéenu biir yaakaar naa ni tey moo war a jëkk a vacciné parce que feebar bi ndegam ku ku wér lay lor asamala koo xam ne dangaa nekk jigéen ju wéru jigéen ju wéru buñ ko waxee mooy jigéen ju ëmb jigéen ñu ëmb ñi dugg leen ci maternité yi dama leen ko ñaan sama mbokk jigéen yi ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi dugg leen ci quartier yi dugg ci euh, maternité yi dugg leen fépp fépp fu ngeen xam ne rek mbooloo daf fay daje man sama kàddu mënumaa egg ci ñoom mais ñi nga xam ne yeneen bàjjenu gox yi jox naa leen ndigal ngeen egg ci ñoom pour mën leen a ñaax mën leen a fàttali ni feebar baa fi te day rey te deuxième vague bi doy na waar doy waar koo xam ni rey na loo xam ni wax dëgg yàlla buñ ko xaymaa dafa jékki dayoo bàjjenu gox yi tey yéen waxtaan bi dugg leen ci quartier yi dugg leen ci fépp foo xam ne mbooloo nga fa te ngeen tere mbooloo yi yéen bàjjenu yi yéen ñi nga xam ne yéen yor suñuy kàddu yéen a ñuy demal fépp yéen ñuy demal ci hôpital yi demal ci dispensaire yi ñuy demal ci pédiatrie yi yéen ñuy demal fépp dañ leen di wax encore une fois di leen wax ngeen dugg ñaax askan wi ñaax nit ñi jigéen ñi jigéen ñi wérul ñi ñu gàddu seeni doom ànd ak ñoom ak seen njabootam vacciné wu vaccin yi nag ñu demee tey ba état indi ko dafa indi nañ ko pour àdduna bi pour nit ñi vacciné wu ci pour mu aar li ma waxoon sànq rek fagaru moo yi buñ ko indee indeewuñ ko defewuñ ko pour politique defewuñ ko pour dara dañ ko def pour dimbali askan wi Sénégal néew na doole néew doole koo xam ne santé bi néew na doole néew néew doole koo xam ni tey ji bu ñu indee piqûre pour tegal ñu ko fii pour mu aar ñu yaakaar naa ne dañ koo war a rafetlu maa ngi woon ak sama mbokk jigéen ñi di woo kilifa kër yi boroom kër yi di woo sëriñ si sëriñ si nañu mu wax ndax ñoom seen rafet rafetlu nañ ko ndax bu ñu waxee askan bi dégg leen taalibe yi dégg leen sëriñ si wax leen seen taalibe yi ñaax leen seen taalibe yi ñoom it ñu ñaax ñeneen ñi ñu mën a dem faju ji dem ñàkku ji dimbali leen ngir yàlla dañ leen ko ñaan na ñépp dem ñàkku ji bu kenn ni ñaq yi pour affaire politique la wala état bi dafa bëgg lii walla feebar bi amul wala pikiir yi baaxul piqûre yi dara nekku ci dara nekku ci dañuy faj dañuy aar ma leen di waxaat surtout jeunes yi nag jeunes yi damay dégg ñu naan piqûre yi lii piqûre yi laa di ko utal loo xam ni du loolu nekkul ci piqûre yi boo gisee ñu indi piqûre yi pour nit ñi la pour dimbali ñu parce que boo demee ci boo doxantoo ba ci hôpitaux yi di nga xam ni feebar bi li muy lor wax dëgg yàlla jéggi na dayoo waaw tey na émission tey bi moo doon ñaax astan wi wax leen xamal leen ni leen ñaq yi ñaq yu baax la état bi su déplacé wu boo euh, déplacé euh, euh, débloqué xaalis bu bari daf ko ci ñaq pour suñu suñu suñu suñu santé la dafa ko pour di ko politiquer ndax bu doon ne daf ko def pour politiquer ko kon ku mel ni Papa bay Mbaye du ko def te yéen Papa Mansour Mbaye rek doon na référence Sénégal ba nga xam ni lu mu jóg en tant que mag jël dàll sol dàllam dem def ko ñun yaakaar nañu waruñoo toog ba ñu ñu naan ba ñu ñuy wax naan piqûre yi baax na baaxul képp ko leen ni piqûre yi baaxul day wax lu ko neex piqûre yi baax a tax ñu def analise bi te fa mu jógee di ko saytu di ko saytu di ko seytu ba deuxième vague bi ñëw ba àdduna bi yépp def ko ñu indi ko Sénégal pour ñu def ko Ablaye Diouf Sarr yow dañ lay remercier parce que wax dëgg yàlla santé bi yaa ngi ciy bay sawar fu ma toog di def émission dama lay remercier parce que gis naa sa taxawaay gis naa sa fulla ak sa fayda ak li ngay def ci santé bi maa ngi wax nag ni euh, bàjjanu gox encore une fois di leen woo pour le 8 mars le 8 mars mooy journée de la femme nañ leen jóg ñu takku ñaax suñu boroomu jigéen ñi wax leen ni leen nañu dem ñun ñëpp ñu vacciné wu vacciné suñuy doom maa ngi leen di gërëm di leen sant nag lii moo doon tey seen émission Salam Santé tey dama ñëw pour gën a ñaax askan wi di ñaanal ñëpp di gërëm ñépp di ñaanal suñu DG di ñaanal ñi ma fiy liggéeyee doo ñëpp maa ngi gërëm waa Salam Vision bu baax di leen ñaanal site bi yokk ca kaw jëm ca kanam di wax Abdoulaye Diouf Sarr tamit saa may tëj dama lay remercier bu baax di la wax ni la waa Salam Vision rafetlu nañ sa liggéey ñu ngi ci sa ginnaaw ñu ngi lay jàppale bu baax ñu ngi sensibiliser nit ñi pour ñu gën a moytu dee leen raxasu ba set dee leen utiliser gel te dee leen takk masque tey moytu ndaje yi lii moo doonoon seen émission Salam Santé maa ngi remercier ñépp nag di remercier tamit ñu wax dëgg yàlla ñi nga xam ne heure bu ma defee émission ñu ñu ngi may suivre partout dans le monde di remercier waa Bordeaux waa maa ngi remercier waa Italie États-Unis Suisse bàyyi ma kenn fépp foo xam ne ñu ngi nekk di bëggee soxna xat yi rek maa ngi leen di remercier bu baax du ma tudd turu kenn nag ñi may waxal xam nañ ko surtout waa Bordeaux di remercier waat waa Bordeaux bu baax di ñaanal ñëpp gudd fan ak wér di leen joxaat rendez-vous incha allah bi àllarba ci waxtu bi ci biir Salam Vision yàlla nañ yàlla defal jàmm ba àllarba incha allah.